monsieur le ministre de l'eau de assainissement ginnaaw la félicité ci nomination bi ñu la defaat ngir nga àggale si liggéey ci li ñu la dénkoon ñu ngi la siy félicité parce que nag ñu baree bari ñu ngi naan neex ngaa jot c'est vrai neex ngaa jot parce que ku la woo pour soxlaay askan wi da nga ko da nga ko wuyu da ko tamit régler la nga ci man parce que ci jamono yàggu rek woo naa la téléphone di la wax ne ñi nga xamante ni dañoo bëgg ay pour ñu def évacuation wut ay canal yoo xamante ni pour dugal seen ndox mu bon ci canal bi te ñu si bëree bëri ak euh, situation bi dégguñu tubaab mun ñu làkk pour que maam ñu ma dugg si internet bi ban la ko waxee saafara nga jafe-jafe yooyu ñun nag loolu lañ fi nekkee musuma ñëw si bureau fukki at ak ñaar yëpp xamu fa sa bureau nekk mais li am solo mooy neex ngaa jot loolu moo waral bu ma gisee tey jii ministre bu dëkk si benn département ay député am di ko tàgg damay am ferte ndax ñun suñu ministre amul amuñu mu amuñu si moom loolu loolu rek mooy situation bi boo xoolee depuis 2013 ba fi may wax a yow bitsi bii ñu la jox mi ngi nekk maanaam 1094 milliards francs CFA 2013 ba fi may wax yow jox na ne 1094 milliards 404 millions 481 814 jox nañ la ko ci ministère de l'assainissement bitsi mi ngi tàmbalee yokk ci 2018 parce que 2017 bi mi ngi nekkoon 56 milliards mais bi Mansour Faye ñëwee bitsi bi dañ ko doubler def ko 105 milliards francs CFA ba fi may wax yow jóge na 105 milliards ñëw 106 milliards jóge fa ñëwaat 113 milliards 2021 124 milliards 2022 128 milliards 2023 bi 131 milliards 2024 ça fait 132 milliards francs CFA mooy li ñu la nattal ngir nga war a doxal ñun nag li ñu si wax mooy benn problème nag muy Touba parce que Touba di programme boo xamante ni il faut ñu def programme spécial ñun suñu programme bi ñu yore un cinq 5 bu ñu yàlla mayee jël réew mi damay jël 1000 milliards. 1000 milliards laay jël jagleel ko Touba assainissement Touba ak ndoxu Touba mu jeex benn yoon. parce que loolu mooy li war a am ndax Touba dafa mérito tey am assainissement bu baax am ndox mu naan bu baax te boo xoolee monsieur le ministre de finances et monsieur le ministre de l' assainissement daaw Touba ndox mi ñuy naan yéen a ngi si dugal quinze millions ci bisu 2023 loolu dafa tuuti pour man. 815 millions bisu 2023 moom ngeen dégagé pour mu dugg Touba si ay ndox mi ñuy naan pour foosal yu paan ñu war koo defar aw yu demee noonu di jëm si mbirum assainissement Touba 2023 daaw yéen a ngi fi dugal 7 milliards 500 loolu mooy nekk si bis bi 2023 tey 2024 bii nga xamante bis bi ba ma ko liiree xool ko 8 milliards francs CFA laa gis pour assainissement bu Touba pour man loolu dafa tuuti il faut que monsieur le ministre des nga wax ñu réellement ban montant moom la am ci 2023 ci mbirum assainissement pour que ci biir si ministère bëgg nañ ko xam li jëm ci mbirum nag man solution bi ma leen di wax mooy Touba tey bassin yi dafa bari d'accord mais solution bi gën a gaaw da ngeen di war a jël autoroute Ila Touba bi ba Thiès ngeen xàll ñaari waay yépp canaliser maanaam Touba ndox mi di jaar foofu ñëw ba cees côté bi féetu droite daan bay ndoxum noor daan bay noor di si naan jur gi di si naan côté bi féetu gauche daan si bay di si naan loolu mooy solution bi mais bu ngeen defee ay kamb toolu jàmbur yi yàqu loolu y a un problème man loolu moom laa xam ne bu ma jëloon réew mi dinaa def loolu muy assainissement parce que loolu mooy li gën a gaaw tey mënu leen dem poofu di ngeen jënd bassin yi dem Daaru Rahman ngeen def ay bassin te li gën a gaaw mooy fi mu toll nii cinquante milliards francs CFA mën na la may ñaari xàll yoo xamante ni da ngay xunti ñaari xàll ba jëm Thiès bu ko defee maanaam ndox mi foofu la ñuy verser muy dem déetul fees bukk déetul tamit toj ndox mi nga tool yi nga xam ne yàq woon bassin poofu di yàqu tool yooyu noonu monsieur le ministre la ngeen war a def ba ñu demee def ngeen ko mais li nga xam mooy li jaarul mooy ci plan Orsec bi dafa am benn nit boo xam ne dañu ko jox mat 5 milliards kooku jëkkëru opposition la ci Yewwi Askan la bokk tey xaalis boobu mu gañ a Touba defar ba baaxul moom lay financé ko mu war nekk candidat présidentiel loolu mooy li kon jàpp naa ni loolu il faut ngeen seetaat ko parce que xaalis bi ko joxoon ba Antoine Diome nekkee li nga xam mooy ministre bi nga xam mooy mais ba toj yàq ay tool mais kooku dañu ko waroon jàpp yóbbu te kooku tey jëkkëru opposition la boo xam ne xaritu Macky Sall la loolu ma leen ko mooy lu kon jàpp naa ne il faut que ngeen xoolaat xam ne Touba citoyen ay citoyen la sëñ Touba moo ko moom jël leen Touba sérieux te bàyyi li nga xamante ne moom ngeen di def di musal Touba Touba waruñu ko musal fii Dakar yaa ngi fi def 411 milliards nañ jël Touba sérieux pour defal ko Touba ndox mi neex ndox mi doy muy projet boo xamante ne bu jëm kanam la sa